bi may émission bi dafa bari ñu nekk Dakar Plateau euh, des militants des responsables yuy yuy yuy dénoncer euh, ce comportement bàyyiwoo xale yi ñu fël euh, da nga nekk guéguerre avec Euh, Jean-Baptiste euh, Jean Jean Jean-Baptiste Diouf euh, mënuñu organiser la la la le parti socialiste au niveau du du département de Dakar. parti ah, socialiste au niveau de Dakar waaw ah, département de Dakar. ah d'accord d'accord mais moi je suis en guerre encore une fois avec personne Maïmouna moi je suis un homme politique particulier man xam nga li nga wax man c'est rare ma toog ne man de waxuma kenn kaay ma jiite la. loolu c' est extrêmement important yaa ngi mooy limal koo xam ne nga ne bu tee en guéguerre nekkuma en ak moom xëy na moom il a cette guéguerre la preuve présidentielle yi moom il avait son son chemin qu'il a assumé tout seul parti bi am na lu mu wax mu ne moom candidat la il a c'est ça il a exprimé sa liberté donc je veux dire bu ñu voilà escamoté affaire yi te loolu du loolu moo am solo li am solo mooy aujourd'hui ce parti socialiste laa mooy pour ma gàttal waa bëggoon vraiment conclure ci yi c'est l'avenir de ce pays-là et moi j'invite toutes les valeurs sûres ci ñeel ci réew mi ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey boobu parce que c'est ça l'avenir de ce pays et à très court terme loolu moo am solo. mais mais mais mais mais man dañ ma ne. Euh, nekkuloo euh, ci position wu rassembleur. da ngay créer ay dissensions. ah man de actuellement yow yaa tax au niveau du département de Dakar parti socialiste mënuñu chanter d'une même voix. kooku de ñaari nit ñoo la ko mën a wax benn. parce que man actuellement la département de Dakar boo ubbi woon sa téléphone kii def ko en direct. may waa département de Dakar ñu dugg doo dégg lool actuellement le département de Dakar est le département qui marche le mieux dans le parti socialiste actuellement. am na ñu jàpp a céder la place parce que y' a des jeunes aujourd'hui politique affaire jeune la on a un président qui a qui a qui a qui a qui, n'a pas quarante cinq ans. Euh, on a des. loolu euh, une jeunesse politique. ñoom euh, certains dans le département de, de, de dans département de Dakar estiment que da nga war a. passer la certain dama ne doo ci génne ñaari nit wala ñett. man maa la wax loolu et de façon certaine. xam nga leen non ku ne am nga ñu la contre. Hmm. mais dama ne ci département Dakar doo ci génne ñaar wala ñett responsable yu la wax loolu mais par contre boo mën a ay waxee jeunesse ñun du ñun parti socialiste dañuy wax loolu. ñun sa parti socialiste en 1981 c'est pas en 2024 de. la jox à ce pays la un président de quarante cinq ans un an la mage woon Diomaye bi mille neuf cent quatre vingt xam nga du tey kon du ñuun la ñu wax loolu parti socialiste ñun dans nos textes les jeunes ont toujours eu une ségrégation favorable ak les femmes mënoo fi investir et cetera amul quota minimal boo xam ne da nga leen ko jox donc du ñun la ñu wax loolu nous on n'apprend pas ces choses là maintenant nag euh, euh, nu mu Obama il était jeune ou pas bi muy au pouvoir. il était jeune. il était jeune kan moo ko remplacé. Euh, maamam wax ko. ma euh, Trump maamam voilà maamam moo ko remplacé. Trump lan moo kan ma ko manqué. mais aujourd'hui mais aujourd'hui war ngeen parti jeune war ngeen rajeunir le parti. permettre à d'autres jeunes d'émerger euh, d'exister comme comme Tanor l'a permis. en en 2000 quand il a repris les rênes du parti. c'est pas négociable. c'est pas ça le débat c'est pas négociable ça <laughs> comme comme on dit soixante si quand soixante-dix pour cent de ton effective est fait d'une catégorie tu peux pas faire sans cette catégorie amul sens. parce que jeunes yi parti socialiste attiré tu leen de ñi jeunes yu bari yu nekk parti socialiste c'est parce là, que euh, leur famille dañoo am une une une tradition socialiste mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus. Ah, attirés par le parti socialiste les jeunes xam nga les plus aguerris du point de rek may ñu tuuti bul yàkkamti. le Parti socialiste a euh, des parmi les jeunes en tout cas que voilà moi j'ai j'ai en estime par rapport ak euh, voilà li ñu xam ci politique seen posture politique ak li ñuy défendre et loolu la ñu soxla et ça nag euh, c'est pas une catégorie comme disait Tanor si cette solidarité de générationnelle ñun moom la ñu cultiver nous on veut de, des effectifs partout parce que c'est ça le peuple et c'est pas pour rien à 13 ans vous pouvez être pionnier au Parti socialiste ngay yéeg voilà ba nekk ci élève socialistes yi étudiants socialistes et ba ci cadre yi ba ci sage nous on a dans nos rangs qui des gens qui viennent en réunion ils ont quatre-vingt-douze ans ah on a euh, les plus jeunes c'est ça le parti socialiste c'est la société sénégalaise en miniature et loolu je dis c'est l'avenir on reviendra vendre ça parce que tey quand même voilà dama dama